tey Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te jujul ne jësin dëggal ma bësin Vieux Diouf euh, moom la ñu àndal nag ci côté euh, régie bi euh, ma nga ànd ak équipe bu xarañ boo xamante ne ñoom ñoo ñuy wéttali tey nag ñoom ñoo ñoo ñuy accompagner tey ci émission samedi bi yépp bu leen fàtte ni yéen ku ci nekk ci yéen yéen a tàmm àndandook ñun chaque samedi kon du ñu def rek nuyu leen mais laata loolu dañuy sant yàlla nag julli ci sangu-sang yi. Euh, ñaanal suñu yaay ak suñu papa euh, fa ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu jógee ci barki Serigne Touba ak képp ku jiitu képp koo xam ne dem nga yaay papa xarit euh, képp kuy mbokk ñu ngi lay ñaanal suñ borom yàlla na la yàlla yóbbu àjjana la si di ñaanal nag ki nga xamante ne nii mooy sëñ Muntaxa Bachir suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam a Mbàkke lu mu dund doyul lu mu fi yàgg doyul lu mu wér doyul. yéen ñiy seetaan àndandoog man kooku ko ci ñaanal yàlla nga dund ay junni at ci barki Serigne Touba di ko ñaanal kilifa diine yépp di ko ñaanal euh, ñi seen i njaboot ak taalibe yi ndax taalibe yi tamit wér ak doole kese kese la soxla pour mën a dem euh, seeti ay wasilaam waaye yéen ñi ñuy seetaan yéen i tamit ñi ngi leen koy ñaanal yal na leen yàlla may jàmm ak wér ak xaalis di ko sàkku ci yéen it pour ngeen ñaanal ñu ko ñu nak suñuy njaboot saa yu ngeen jàkkaarloog ñun rek ñaanal leen ñu jàmm ba pare teg ci euh, sañse na lool macha allah dañ koy bëgg Amina sañse na lool. macha allah moo koy tëj kon ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp jàmm yéen yi tamit ak seen i njaboot di leen fàttali rek émission bi ni muy demee gërëm ci partenaires yi euh, day ànd ak ay vidéo yu neex yoo xam ne euh, moo leen di accompagner ci samedi bi euh, journée samedi bi yëpp loolu moo leen di accompagner waaye tamit bu leen fàtte émission seetu bi dafa ànd ak euh, Teranga Sénégal teraanga Sénégal nag mooy émission bi ànd ak 14 raison pour gën a jege askanam loolu euh, groupe Futurs Médias ñoo ko créé muy jàll fii ci TFM l'animatrice du peuple di leen ko présentel loxo yi nag tey xam ngeen ne loxo bu njëkk bi mille laa daan def waaye loxo bu njëkk bi tey mën na nekk 150000 euh, waaw mën na nekk tey mën naa def ku ma njëkk a jot rek bala ma lay yóbbu carte ba yeewee la 150000 francs CFA. loolu nag li ko waral euh, nee naa leen fond bâtiment fondement da cee am solo kon nag ki ñu àndal moo tax mën nañ saa yu ñu yeewoo di may ay millions te duñu ko yëkk ki ñu àndal nag du kenn ku dul Orange Sonatel ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax rawatina nag ñu accompagner ñu ak kër gu toll ci 14 millions francs CFA kon kenn du waa Sonatel ñu ngi leen di jaajëfal villa bi nag mi ngi tollu ci. Euh, mi ngi situé wu euh, Almadi euh, foofu foofule ca wetu Sédima sortie 9 euh, képp koo xamante ne ni yàlla dogal na ni yow la ñu may kër googu rek pour nga dem fa du jafe ak foo mënt di dëkk yaa xam Dakar lay doon wala Thiès Touba mais ci 14 régions yi du ko génn. Hmm? nee naa la kon euh, képp ku ñu mës woo xamal ni sa numéro téléphone en enregistré nañ ko ci suñuy machine euh, un jour ci dimanche yi dinañ jël sa numéro téléphone jox la euh, villa bu yanj boobule remercier nag waa Orange Money moom i tamit kenn demul bàyyi ko Orange ne nag euh, moom mi ngi ñu gunge 60 euh, millions euh, francs CFA te suñu xaalisu réew 60 millions francs CFA yi nag TFM góorlu na ba teg ci ay millions boole ko direct bu leer naññ pour di leen bégal chaque jour. nee naa leen tele bi ba ca rajo ba ñëppay maye xale yi ñëppay maye fi mu ne nii ndax ñi ñu àndal. Orange Money nag ci wàllum dugal ak génne transfert d'argent euh, ci marché bi ñoo ci mën gën a yombale ba pare gën a wóorle kon euh, askan wi yéen ñëpp war ngeen a am Orange Money ci seen i euh, téléphone kalpe bu wóor la dañuy remercier ñi ñu ci àndal ko ci mel ni jili CSB ci wàllu bagage matériel électroménager ñoom nag ñoo ñu ci accompagner ay frigidaire yu amul fenn ay marque side by side ay euh, ay téléphone fold 3 ay iPhone euh, yu amul fenn euh, ak ay télévision yu mujjee génn ci àddina képp koo xam ne bëgg nga matériel yooyu nga xam ne mooy taaral kër dem leen ngeen seeti jii jili CSB mi ngi situé wu foofu la ca site kër góor gi bu fekkee yaa ngi jóge Sacré Cœur mi ngi lay féete gauche bu fekkee Védène mi ngi lay féete droite jili nag amuñu fayam euh, groupe Futurs Médias mi ngi koy jaajëfal ak askan wi nga xam ne ñoom la lëkkalool ci bagage merci beaucoup Adja Ombaliko moom itamit ci yooyu meuble yu taaru nee naa ko ajaa góor góor lu nga du ñu ne Dakar waaye góor góorgóorlu nga ba Sénégal jeeg ji kenn tëddatul ci suuf Adja ombalikoo nag borom ombalikoo meuble moo fi jëlee ndëssan ndëssan mooy teg mat laa ci suuf rek defar ba mu baax teg sa ànd ci wet gi euh, di jaay jonge Adja jëlee na ko fi ndax ñàkk xaalis a taxoon ñi mënuñu meubler seeni kër waaye ba ajaa Ombalikoo ñëwee ba tey yéen ñëpp da ngeen di am ci bagage meuble yi mu génn ci àddina design yu am solo ba pare ci njëg ju amul fenn kon nag dem leen ngeen seeti Adja Ombalikoo ci wàllum yëreeg dàll yi tamit boo yeggee di nga ko fa gis góor ak jigéen waaye meuble nag fi mu nekk nii ajaa moo ci teg loxo gën koo yombale ba pare dàkkale ko ci réew mi ñëpp am meuble ndax Adja numéro téléphone am yéen ñi bëgg a dem ci moom euh, 77 la. 519 18 04 dem leen ngeen seeti Adja Ombaliko série Mikael euh, ma nga foofu la ca Liberté 2 ay ca mi ngi noonu émission bi nag euh, door na euh, ni muy dooree mooy vie Diouf bu fekkee ni maam Saliou bi ñuy léemoo chaque jour euh, noppi na muy titi bi nga xamante ne euh, moom la ñuy léemoo euh, chaque jour di leen fàttali na leen fi mu nekk octobre novembre ba décembre titi mi ngi commencé di jël ay programme yéen ñi nekk côté Italie yi préparé leen te xam ne titi bu ñëwee Italie bu leen nangu mu génn te du ngeen profité mu am ak yéen ay contrat soirée yu amul fenn yéen ñi nekk diwaanu Amérique tamit titee ngi ñëw Amérique incha allahu rabbi yéen état yi profitoo leen bu leen nangu mukk titi dugg Amérique ba génn te du wër état yépp pour mën leen a bégal parce que xam ngeen ne euh, macha allah euh, fi mu nekk nii euh, titi poñe réew mi ak xale yépp artistes yépp mais nag fi mu ne titee ngi bomb léegi nag dañuy dem déglu maam saaliw bi bégal leen ci léemu ci saali xaat yi ak murit yëpp ak taalibe yëpp ak ñëpp képp kuy béggee Serigne Saliou rek boo dégloo titi bi sa xol dana neex man daf may yëngal Vieux Diouf laa àndal bu ñu ko mayee ñu jël léegi àndandoo ceeg yéen ay ca vieux mooy animé de du man de <laughs> ay ca may ma ma maye rek benn loxo doog a dugal invité yi bu ngeen gisee tey euh, ni chaise yi bare ngeen xam ne du man dongo bu ngeen gisee it ni ma soloo nga xam ne ndaanaan laa woote <laughs> ku màggay ñëw yéen téye leen seen xel yi rek te daas seen fidi te xam ne émotion dina bari tey fii di nuyu sama xarit yi nekk Facebook live yéen maa ngi leen di nuyu ak tik ak ak Instagram Sinap fépp fu TFM nekk rek ak SSP maa ngi fa ah kon maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di ñëw ci yéen nag réseau yi tey maye xaalis ba ngeen doyal euh, Facebook live xaar leen ma am ngeen yéen chaque jour euh, ay loxo 25000 euh, ñi ngi may wax ne ma naa ko arrêté waaye mukk bàyyi ko dee ma ko gënal ay ca téléphone bi lu ngeen njëkk am rek ma maye 150000 bala maa dugal invité bi ah merci beaucoup merci ah. man nag Vieux Diouf dama ko bëgg ci sama xol <laughs> tey dañ ma boole koo bëgg bu tey tey bu dee day tàlli dafa bëgg ma koy wax dama la bëgg tey moom bu dee day tàlli ndax moom Amina moo ne man dama bëgg Vieux Diouf ak ni ma koy waxee bu dee tey day tàlli moom ñaari nit la nopp ci àddinaam man ak Saliha <laughs> xanaa kii moo amul xel ay ca euh, euh, euh, dans une minute tey dama fuuy ndax tey loxo bu njëkk bi cent cinquante mille lay doon cent cinquante mille yi nag téléphone bi ñu ngi may xamal ni amuñu kenn yow mi toog di ma seetaan jàppal ne nit ñi suuf seetooy kenn bëggul génn jënd crédit profito li nga am ci crédit nga def ko ci man léegi ma may la fanweeri junni wala nga dal jëndi séddoo ma may la cent cinquante mille orange tamit euh, woote na euh, euh, woote na woote na lu doy waar képp ku bëgg a nuroog joueurs yi mayo am ngeen pour bokk ci jeu concours boobu muy def wala képp ku bëgg a am durant match bi fii ba le 30 képp ku bëgg a am Illimix un mois bi ci sa téléphone tamit mën ngeen a bokk ci jeu orange boobu le dañuy maye crédit di maye ay mayo ay ca Illimix bi mu ngi toll ci 4500 francs CFA nga am crédit un mois ay ci waa Facebook live maa ngi ñëw ci yéen na xonq rek yéen bu ngeen bëggee fii di neex nay rouge na kër yi ñëw ak loxo yi doole gaynde njaay gi na génn l'animatrice du peuple c'est moi c'est dëkk bee fa wax <laughs> ay euh, bu ngeen amee euh, appel euh, bu ngeen amee benn appel jox ma ko amaguma appel te dama war a maye cent cinquante mille sinon damay demaat ci maam Saliou bi parce que doyul liñ ma ci jox doyul waaw xam nga man dama bëgg Serigne Saliou dañ koy sant rek naan ko Mbàkke lépp yegsi na bu fi yemoon sax mu neex balay sa ku dul doy lu doogoor te ku dul sant ki lay may it doo nit waaw gannaaw bi ñu santee yàlla nag dañuy gërëm suñuy waajur waaye dañuy sant Serigne Saliou sëñ Saliou njabootam jim fi bàyyi yal na leen yàlla teg loxo ci barki Serigne Touba sëñ tubaa dafa juboo woon ak suñ borom luñ ko ñaan rek luñ ñaan yàlla ci barki Serigne Touba yàlla dañu koy yombal moo tax ñun lu nuy ñaan yàlla dogal na ni da naan yal nañu ko yàlla may ci jëmmi seexu saaliw <laughs> muy nekk ayca boo amee téléphone ci 88 676 03 03 koo njëkk am rek jox ma ku ci am chance ba dugg ma teral la nga dem toog tey nag dama leen a fas yéenee bégal ki ma invité la sénégalais yi bëgg dama leen di bégal te dara du yëngu ayca koo am rek koo njëkk am rek Eva ci 88 676 man tamit maa ngi 0 88 676 Amélia rek man aw kenn ku dul Amélia barki Serigne rek laa am moo may defar ba ma rafet barki yonante bi ay jox ñu téléphone bu amee ci 88 676 kenn duggagul ku njëkk dugg ñu may la 150 000 francs tey loxo yi dama koy damay ëf loxo yi tey loxo yi tey dama koy def ni ballon dama koy ëf pompe ko ay ca euh, Facebook live ñu ngi leen di nuyu ñu ngi gis doole yeeg kër yi waaw waaw ko ànd ak gaynde dangay ngay bàkku bàkku leen waaw waaw jaayu leen àddina lii lañ fi am dañ ko fi bàyyi ñu yóbbu ñu nay rafet rek yéen ñëpp bàkku leen waaw kay ay ca Eva koo am rek ma jël 88 676 xam leen ne loxo bii may waaj a maye jar na woote jar na tante chance jar na buuxante fanweeri junni tey la lan la treize fi réew mi toll ah fi réew mi toll cent cinquante mille ñetti fukki junni jar na woote kaay duggal ay ca 88 676 06 06 88 676 05 05 88 628 65 65 bëgguma demaat ci titi bi te mayewuma 150 000 téléphone bi y'a personne kenn duggul il faut que am ñu dugg ma yëkkati xaalis may leen il faut que tey ñu teralante àddina du dara lu dul teraanga tiitaru leen jaayu leen lu ngeen am lekk leen ko tiitaru leen ba mu neex aw ah, loolu la nit ñu baax ñi fi nekkoon dañ leen daan jiin ñuy jaayu di tiitaru ku ci yëg sa bopp rek jaayul tiitaru leen ayca ku ngeen am ci 88 676 05 05 dans une minute dans une minute bu ma amul kenn ma dem ci titi bi dans une minute Vieux Diouf may leen une minute ñoo xool euh, ku ñu njëkk am ñu dem euh, Facebook live ma yeggum fa benn juróomi junni maa ngi gis ku ñu naan euh, Pape Laye Dieye pap Laye Dieye yaa ngi may fàttali sama xarit bi ma demaloon démb ca tuddam ba mu naan ma am naa lu rëy. ma ne ko billaay ko du génn génn na tey démb damaa demoon xew waaye sañse woon naa nag dinaa leen woon sama sañse démb bi ngeen xam ne man bu may dem xew ak bu may liggéey si du benn ay <laughs> euh, euh, Pape Laye waaw may nañ ko mille euh, ci Facebook live bi dina gis léegi message am tey nañ góor góorgóorlu nag maye Facebook live bu nekkee sax benn 10 personnes ah ñu reyante ko ndax xale yi Facebook live ñun amuñ seen fay barki Serigne Touba. ay ca Facebook live tey euh, njëkk nañoo jukki ku tudd Pape Laye Dieye après dinañ ñëw léegi tànnaat beneen jigéen ak beneen góor danuy mixé góor jigéen àddina moom góor jigéen la waaw ah, dañuy mix dañuy mixé rek di def ay góor tuuti ay jigéen tuuti <laughs> li ma naan xale yi kaa yi kaa yi kaa yi ñuy génn yëpp kaa yu normal la xam nga ban kaawa normal jigéen ak jigéen wala góor ak góor loolu moom kaa dëggantaan la mais kaa yi ñuy génne jàpp nañ nit ak fara jàpp nañ nit ak jëkkëram jàpp nañ góor ak jigéen loolu lu normal la di même bu ñu ko wanul xam nañ na loolu am na <laughs> ay jë 88 676 fii daal xam nga lan lañ bëgg a gis mu nekk kaa danoo bëgg jàpp nit ak mala loolooy kaa mais nit ak nit nit ak ki mu nopp nit ak jëkkëram xale bu góor bu rëcc di doxaan ñu jàpp ko kaa ko xale bu jigéen bu amul jëkkër am far ñu koy kaa ah mais loolu du kaa nit ak mala mooy kaa wala góor ak góor jigéen ak jigéen ay ca <laughs> Eva bu fekkee ne am nga benn téléphone man awuma dara maa ngi zéro ay ca Vieux Diouf may naa leen cinquante secondes dans cinquante secondes bu ligne bi amul kenn ma dem ci euh, titi bi euh, maam Saliou bi dafa neex dama ko bëgg il faut que ma ma xërxët il faut que ma tàngal ci sama yaram jaayu wane ni jeeg bu ndaw laa jongo ma laa sànneeku <laughs> wan xale yi ragaluma waaw këy def sama bopp profil ci télé bi maa ngi nii zumma la sàcc bay bañ maa ngi nii ma borom palmarès bu rafet bi daanu rek ci ñaaw da doon sangu 8 heures temps yee daanu 7 heures la dugg toilette tam di sangu daanu lii rek a ñaaw ci palmarès am <laughs> maa ngi nii tar mais kaay daanu laa wax daanu nii waa ñaar yooyu rek te loolu accident la woon loolu moom damaa liggéey woon Amérique oto mbëkk ma mooy nuyu waa Atlanta sama yaay ja euh, Mambouré Socé ñoom ñëpp ñoom Aminata Mambouré Lisa Mambouré loolu ba tey ñaawul dama doon liggéey di ñibbisi oto mbëkk ma mais bii nag dama sangu suba teel tarxis daanu façon daanu boobu laa wax waxuma beneen daanu fi <laughs> ayca eh, Vieux Diouf jox ñu titi bi eh, ñu dëppaat bu ñu dëppee ku ñu fekk ci ligne bi teral la ñu dem seetaan titi bi ñëwaat léegi ba ba ñuy am téléphone ci kanam tuuti ñu duggaat Facebook live Vieux Diouf na boy na boy mbaamu mu na yéeg. bootam ji ndax nee naa la ñun bu ñu jàqee rek dañuy dugg Touba te buñ duggee Touba ñun fuñ ci dem rek buñ demee kër sëñ Cheikh mu sëriñ Saaliw suñu aajo yi faju buñ demee ci sëñ daam nag tarkal la ndax ku ci nekk xam nga ne génn télé dafa metti nee naa leen ñun ci jur gi leen téye leen ñu comme nit ñi normal ñi parce que nekk télévision dafa metti loo wax ci sa la sax ñu ne est-ce que kii war naa tudd kii mu tudd fekk na boo matu ñoo la gën a jege kooku waaw sëriñ Touba xam nga lu mu xam ki ko kennal képp nangu koo topp ci suñu borom waaye ma koo bëgg te kennaloo ko la mu wax nekkoo ci ah sa mbëgg de sa murit daal des na kon ñun ñi ngi ñaanal waa kër sëñ daam atta yi yàlla na leen jàmm sonal njabootu sëñ daam jépp nag kulim juum ah ñoom sëñ xaadim ñoom sëñ Modou Ablaye ñoom eh, ñoom Basnaar sama waa ji du moom Sadix nee naa ko réew mii ñu bari yaa leen xamal lu baax ci sëriñ Touba moo mën a defar sëtam sax dañuy defaraate xale yi ci réew mi bari na ci ñoo xam ne ku ci xam lu baax sëriñ Serigne Touba bu baax bii la sëñ Sadikh Mbacke muy ci nitu zaahir yeeg nitu baatini moom day jàpp rek di defar di teg dara ñoru ko nag dëgg la dafa laa biir dafa baax sëñ Sadikh waaye day defar rek defar rek ko ñor bu defaree ba mu baax mu wane gannaaw xooli leneen lu mu defar sëñ Sadikh ñi ngi lay nuyu bu baax Bala Issa Bouré di nuyu sama sang ba euh, sëñ bas Abdou Khader ñi ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu soxna moom i moom i tamit bu baax di ñaanal soxna Bali Muntaxa yàlla na ko fi yàlla bàyyi te mu ànd ak wér Bala Issa Bouré nee naa ko sëriñ suñu sëriñ ba pare suñu sunu sunu sunu suñu bàjjan soxna Bali lu mu dund doyul ku mel ni soxna baali nag man gisuma ko ci àddina fii ba màkk ku mel ni soxna Bali amul góor góorgóorlu na ba soxna jaara yi ñépp a mokkal alxuraan te poroxaan nee naa la kuy yelwaani newu foo kuy ñaani newu fa ku ñu yóbbul yóbbante it newu fa soxna Bali teg na loxo ci lépp lu waroon a metti lépp la faj ay cër ñu daal di dem nag euh, euh, ci invité yi bu ñu amee téléphone jël léegi la temps que chat di yegg si euh, le temps que moi si je t'aime trop mon amour maa la gën a nopp maa la gën a bëgg I love you ay <laughs> mais je t'aime laa jot ma delloo ko ngay donc lan la yow weeju wala réew mi kenn amatu fi droit bëggante lu si sa yoon ki ma war a nob laa nob feeju animel bul dagg lii yow eh bu ma zu bu ma ñuulal <laughs> ay ca ñu daal di dem ciy caat euh, tey nag ndaanaan sénégalais yi ñoo bëgg ki ma invité ki ma invité tey sénégalais yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko choisir muy koo xamante ne tey xam naa du ñàkk sax nag mu mu mu bàkkal ma sama nit ñu baax ñi ma fi jot a lim léegi ay ca ñëpp ngi lay déglu dugg si ak sa baat bu neex macha allah seetaan leen ko kuñ fekk ci téléphone bi teral la léegi. réew déggu walam réew Amina Poté sama waa ji. macha allah xale bu yaru. nende mayu laay. caata ngoog xale bu am talent. su ma ñibbee na yaa xooj dooy sa du ñee sa moroom ni lee la ceeboy melooy mbaa bu bët seebee àll ndox mee baawaan gisee boy meloy Amina Poté sama jigéen mbaa bu bët see be àll ndox may baawaan buura man ci réew doomi buura man ci réew ooy Amina Poté ku weddi seet layoo bi jeex su doom ye màggee atal leen amina sa yaay layoo naa géej gi bàyyi na leen xale bu am tam xale bu yàqu juddoom xale boo xamante ne macha allah lii rek du métier bi dafa am métier boppam ba noppi mën naa ne presque lii man maa ko ci dugal ndax maa ko njëkk invité télé maa ko njëkk a ci télévision waaye muy xale bu reconnaissant xale bu am jom xale boo xam ne nag réew mi kuy xew la te wowuloo ko la nga làng du neex ñu bàyyi ko mu doxal naa numéro euh, dama koy teel a joxe ndax xale yaa ngi may bëgg rey euh, caat jo fàttali ma sa numéro 900 lan laati. waaw 987. waaw 34 77. ayca bu téléphone bi amee kenn ci 88 676 ngeen jox ma ko 88 676 03 03 wala 88 628 22 22 tey nag ñi ñuy seetaan la ñuy bégal euh, dinañ maye ci Facebook euh, live bi xaalis waaye tamit dinañ fa jël ay tur euh, chat mi bàkk leen ndax xale Facebook live ci boppam ñu ngi laajte sa numéro téléphone ñu bëgg xam lan moo tax sénégalais yi taamu la léegi dafa mel ne yow da nga xew macha allah. waa Amina loolu ginnaaw bi ñu sant yàlla. Euh, jëli si yéen bi ñu ngi nuyu ñëpp. di nuyu seen fan bu ngeen amee téléphone rek jox ma Eva waaw demal. di nuyu sama ménagère Boubacar Samb. di nuyu Baara di nuyu Bëgg Yàlla di nuyu Mbay mi ma àndal ak Daouda Paan di nuyu mboolem kuy euh, bëggee les étoiles di Saloum macha allah. Amina Poté. Mhm. ginnaaw buñ sant yàlla dañ lay gërëm. macha parce que lii yëpp bu amee yow la. ndax yow yaa ñuy jëlee si fëgg jaay bi. ñuy jaay fëgg jaay nga ñëw fekk ñu fi ne leen yéen da ngeen ñoo am talent ñëw leen ma wane leen. ndeysaan ndax fuñ toog dañ koy tiitaroo amee naa yow da baax. macha allah yal na la yàlla lafal cat. amiin amiin lu tax ñi xew yow yaa ko waral rek. <laughs> yaa ñu génne wane Sénégal wane ñi àdduna bi yëpp. macha allah àdduna bi yëpp dañuy wër si yow la si yàlla yow la ko yàlla jaarale kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. di gërëm tamit suñu suñu fans club bi ñoom nabu Salaan ñoom Mati Diouf Fatima Thiam. ak Fatou Sané mboolem fans club caati rek léegi maa ngi tànn euh, ba ba may am téléphone maa ngi tànn ci Facebook live bi kenn euh, nga wëyal ma ko kii mi ngi tudd euh, ku ci nekk nag ki nga bëgg ñu wëyal la ko bind leen ko dinaa ko liir sa yaay sa jëkkër sa xarit du tey tamit dinañ ñëw maye fa ay loxo juróomi junni kii mi ngi tudd day naaw nag affaire bi dafa graaw de ah. Euh, maabel Saw ah kii mi ngi tudd euh, Mbisaan Jong Facebook live la nekk Mbisaan Jong gis nañ kër yu bari yi déglu li ñu lay waxal bu la neexee après nga dagg ko ci YouTube bi wala ci euh, Facebook bi def ko statut nit ña xam ne woy nañ ko tudd Mbisaan Jong ci Facebook live bi ku ñu bindal turu yaayam wala jëkkëram it danañ la woy demal ci Mbisaan Jong

Manda Bizier. yaay laay ngoyaana la neexee ma way laay ay ca Eva jox ma kenn vite fait nu mu gën a gaawee euh, ñu tibb ci loxo yi euh, maye ko euh, dinañ ñëwaat léegi ci keneen ku nekk ci Facebook live bi comme affaire bi dafa gaaw caat waaye fàtte naa yow macha allah. lii sa métier la da nga koo mën ku ma la jox turam rek na ko jàpp ndax xale yaa ngi bind seeni i jëkkër de gis naa léegi ko bind Babacar Jara mais turu euh, turu xale bu jigéen bi moo moom rëcc xam naa dina bind bindaat chéri Babacar Jara tantôt dinañ woy Babacar Jara euh, jàppal turu Babacar Jara waaw jabaram moo bind pour ñu woyal ko jëkkëram euh, Babacar Jara ay ca ah, ñu dem ci téléphone Eva mën nañ maye benn loxo bu fukki junni bu gaaw a gaaw mën nañ maye benn cinquante mille bu gaaw a gaaw doo ko dem ci chéri Babacar Diarra dañuy dem ci carte bi euh, léegi euh, kii dugg bu fekkee cinquante mille la bëgg ma may ko ko bu fekkee dafa bëgg dem carte ba ñu may ko lu ëpp cinquante mille wala sans dépend sans euh, dépend moom mooy tànn ci man la bëgg wala carte ba koo ma njëkk a jox rek ma daa di jël ci 88 88 676 03 03 allo. allo. oui ma chérie. salaamaaleykum. na def. ça noo tudd. maa ngi tudd Penda Diop. Néné Diop. waaw. célibataire wala marié. célibataire. célibataire Néné Diop sa yaay nu mu tudd. Eh, sama yaay Amina sàmb ah. sama yaay Amina Samb. Amina Samb. waaw. ayca Néné naaru Amina Samb ma may la wala ma yóbbu la ci carte bi. yóbbu ma ci quartier bi. ay ca loolu sawar naa ci ndax sama grand bu mën a génn man dama bëgg ku may yëkkati ma naan yël bët jeeg bu ndaw laa sonn yomb ma mën naa daw dakaar ba Kaolack dëppaat duma du ma yëg ni maa ngi doon daw jeeg bu ndaw laa. ay ca ñu dem ci carte bi euh, xool nag ban dëkk lañu lay euh, tànnal euh, ma chérie Jóoba Jóoba ay ca Saint-Louis Matam Louga loo Diourbel Kaay ba Kaffrine am na xaalis foo ci tànn ma teral la. ah. Fatick Fatick. Aïcha ñu ubbil ko euh, Fatick euh, ñi nekk ci réseau bi nañ gaaw ubbi balaa xaalis sama jeex ngeen sa yaay mi ngi tudd Amina Samb. waaw. Aïcha del déglu euh, dinañ la teral ba pare wéyal la sa yaay xanaa looloo yi teraanga nag. d'accord. naaru Amina Samb préparé caat naaru Amina Samb lañ war a bàq léegi nee la xale yi ñuy seetaan ñu ngi sax may naa la 75000 teg ci wéer la sa yaay lu dara jarul naawal ci amee naaru Amina Samb. déglu li ñuy wax sa yaay demal. may naa ko 75000 ba pare fas yéene na koo wëyal yaayam ci kanam tuuti ñu dem Facebook live tànn ci xale yi ay ca demal. ñi ngi àndandoo ak yéen euh, naaru Amina Samb lañ bëgg a woy gaay madame bey chéri Assane bey madame bey tey ma ji Diouf borom ni yor koy Mati Diouf jey borom ni yor koy Mati Diouf jey borom ni yor koy Mati Diouf jigéenu baara Mati kaay tey ma ji la Mati Diouf foo tey ma ji la Aïcha dañuy ñëw wéyaat ku tudd euh, Maniru Njaay xale yaa ngi bind xoolal ku nekk nga nopp yaa ngi koy bind dem Facebook live seetaan xale yee nobaate sa téléphone ngi toj jox ma benn tur yow ci ñi nga am jox ma benn tur rek en attendant euh, yaa Sophie chéri yaa yaa Sophie chéri Ibou Diouf yaa Sophie chéri Ibou Diouf mooy euh, chéri caméraman bi <laughs> ay ay Ibou lii dafa neex de. alaay la jaabile ban na leewoo yaasu fi laay woo saa yoo ko gisee ko daa lay lay la la yoo laay la jaabile ban na leewoo seri ibi juufoo saa yoo ko gisee ko daa mais lii dama neex. xale yi Facebook live ñëpp Amina euh, wéyal ma sama jëkkër nu mu tudd. wuy sama ndey ay waay naaw na. vive Saloum d'accord ay jo euh, Nogay. Nogay. ay waay man man mënatuma lire ndax affaire bi dafa gaaw Facebook live ñëpp a ngi bind. xaaral ma ñëw bala ñoo dem ci Série Tidiane wéyal kii euh, Chéri Mbaye Cissé. ah séeri mbay Cissé eh lii bala moo jeex nañ ci woy sama jëkkër ji manit ki dalal sama xel ba ma rafet ah la nobee da ngay naayis <laughs> eh sama jëkkër doo ko ñëw ci eh, kan sama jëkkër man waa dimbale ma <laughs> eh tam <laughs> ki fii ngi fay télé bi bul fay taxawal wéyal dañ ci ñëw léegi comme daa neex bala moo jeex na ci woy sama jëkkër ndax lu neexee nii dogaay bi yaa ko ni rek demal demal yee mbaa kontaan maa ngi yéen ba dee gi joonaay wayal way naa la amina man way naa la chéri inconnu man way naa la yaayu petit man way naa la ana amina yaaja baax na chéri inconnu yaaja baax na amina man way naa mag yow ba déegi joonoy Cissé man way naa la ani ana Cissé man way naa la mbokkum ba man way naa ana Cissé yaay ja baax na ana kaay yaay ja baax na duma sey léegi maag yow ba déegi joonooy man way naa la man way naa la chéri Fatou kaay man way naa la ane manir man way naa la chéri Fatou Njaay man way naa la maniro yaaja baax na e maniro baaja baax na maniro baaja baax na e du ma sey léegi ma yow ba dégg doonoy baax na yow Yacine baaje baax na Yacine baaje baax na Yacine kaay man way naa la ane Yacine Njaay man way naa la ane Yacine Njaay man way naa la borom parcelle man way naa la duma sey léegi ma yow ba dee ki joono waaw waaw man way naa la Chéri Abdou man way naa la borom pari kaay man way naa la Chéri Abdou Dia man way naa la Chéri Abdou yaa ja baax na duma sey léegi mag yow ba déegi joonooy sama juddoo baara lamin sama juddoo ani baara man way naa la mbokkum yaayu caat man way naa la Boubacar yaaja baax na Boubacar di woo duma sey léegi maa ngi yow ba déegi joono eh, mais yow eh jàkkaarloo yi wuy ma fii ngay jaar xew ba faw bul fàtte joor euh, téye ko parce que may fàtte joor xaaral Facebook live bi dafa gaaw nag nee na Amina nañ woy sama jëkkër mu euh, monsieur Ndoye joor euh, madam Ndoye téye ko foofu ma ñëw ci Kumba madame Senghor ah Kumba madame Senghor Kumba bu Pape Cissé waaw madame Senghor moom it ma ngay bërëngu Facebook bi ñëpp a ngi bind ñaareel xaritu jëkkëram ah ñaareel ca kaw man sax damay waaj a nekk mais papa laay mu nee na ma da ngay xeeñ ñaareel ñaareel dafa am xet ñetteel ñetteel dafa am xet yow da nga bëgg ñu ray la walla <laughs> dama foog na nga feebar man ñaareel xaritu jëkkëram ñaareel nañ ma woy mais xaaral ñu woy Dior euh, madame Ndoye ak Kumba euh, madame euh, Senghor wuyu ma xoolal lii kenn amu ko Sénégal yaa nga ca kaw ay junni nit lay xool nii. woyal joor mi ngi ci Facebook live bi Dior madame Ndoye chéri monsieur Ndoye ak Kumba madame Senghor demal gaaw ñu ñëw may xaalis na e mayal xalam bi retour dimbale ma rek waaw yokk ko kon ay ca yo buura ma ji ne ku dee na de yaa ngi ci yëg sa bopp yow yaa ngi yëg sa. Ah, Amina <laughs> lii rek lañ la indil de. mais lu neex neex. lii rek lañ la indil yoo xanaa daa am ay biteel yoo da nga gën saf. <laughs> léegi dañoo nekk ci ay loxo Boubacar ñu ah, ah, nekk ci ay loxo. dañoo nekk ci <laughs> ay loxo yu wóor. yoo xamante ni ay yu wóor la xale yi ñu xam ne léegi damaa nekk ci ay loxo. loxo yu wóor xool xam ne dangaa nekk ci ay loxo yu wóor mais ñun dañoo nekk ci ay loxo yu wóor. yoo xamante ni Boubacar Samb maa ngi koy nuyu bu baax yow lu sayoon ci loxo yi ma ne ay loxo 22 CRA laa nekk léegi. waaw waaw damaa nekk ci ay loxo yu wóor. Amina boo ñu xoolee jógal baara taxaw. waa yéen ci ay loxo ngeen ne. ñun ci ay loxo yu wóor. yow xanaa 1 mètre nga ñëw yow it baara. waa gis <laughs> yow nekk ci loxo wu neex na Ibrahima daal crime ñoo fi jaar saabu bu may ñëw ki la ñëwal nu tudd. kii. yëf couture. sol moom yàqoo piis ndax dang naan ko raj borom yëmbal képp ku dëkk yëmbal maa ngi kii nga laaj léegi dama lay wutal beneen téyeer bu bees ah na ko naj na ko naj coutire na ko lan <laughs> na ko naj coutire <laughs> na la dagal tuuti couture. mais di nuyu di nuyu Amina. sama ay jox ma téléphone ma may waar xaalis bu amee dugg leen gaaw ci ligne bi waaw. di nuyu waa sama waa koñ Apex. waaw Facebook live may leen ma rek maa ngi ñëw wéy seen jëkkër yi kii nee na Amina na wéy sama euh, jëkkër mi ngi tudd sama yëf sekk ah sama yëf sekk loolu lan la boobu kot. sama yëf sekk ñu ngi ciy ñëw ay ca 88 676 06 06 neex na lool xale bi dafa mën a woy de jël leen numéro balaa émission bee jeex duñ ko fi joxe. Euh, numéro chat 77 la. 987. 987. 34. 34. 77. 77 su ngeen ma woowee dinaa leen jox sama numéro manager. dañoo nekk ci loxo yi wër Amina di nuyu waa APEX ci ay loxo comme man. man damaa nekk ci ay loxo 22 CRA. di nuyu waa APEX ci Omar nekkuma 14 ak 18 ay 22 Lamp. ay yow tamit loxo wuy ma ba tax lu leen fenn rek nekk leen ci ay loxo ñàkk bañ a nekk ci loxo wóorut de. loolu wóorut. sa yoon newut ci num sant commencement turam sa yoon newul ci <laughs> ngeen may tàqalee teg moom tàmm ngeen ku ma liggéey ma kii de du dem ndax ay douze pas am Arabie Saoudi maa ngi koy nuyu ju fuy ma boo duggee ci man kii dalay liggéey kii xam nga ñaata paa am pour man ay douze pas ay paa yu am benn bañ kese ay puune ay paa yor benn bët ay paa yoo xam ne judd judduwaale wuñ tànk turam mukk ngeen yàq ko ay ca kon maa ngi lay nuyu euh, monsieur Inconnu chéri Poté maa ngi lay nuyu sama jëkkër jooju nopp ma bëgg maa def ñaareel ma raw la fuuf nangu laa sëyal soo paree pare naa de wuy ma ragalu ma wuy ma demal ci sama yëf sekk waa Facebook live nee nañ ma Amina na woy sama jëkkër euh, maa yërëm say noon Amina kii mi ngi tudd Anta Ndiaye Diop ayca madame Senghor demal ci moom Kumba madame Senghor ayca ñu déglu ba am téléphone daal di ko jël mayewaat léegi benn loxo ku njëkk a dugg rek jox leen ma ko ma dagg li ma nekkee ay ca ñu dem sama jëkkër na ma bind ne ma je t'aime sama xel dal ma xam ne mi ngi may xool góoru Jalika ay ca demal madame Senghor Kumba ku yóbbu li nga yore moomu loo ko sa dangañ dangañ teg ko fi yow xam nga ngoyaan suñu yëf la sa dangañ dangañ teraanga def la sa dangañ dangañ yéen bayaan am na maanaa personnalité yaay juddu dafa foor juddu dafa foor ngor dafa foor foor sa yaay dafa sonnoon sa yaay dafa sonnoon sa yaay boole nax ak neexal nga bëgg jaat mu bëgg laay nga bëgg baara mu bëgg laay fal nga li nga daanoon gisa li nga daanoon waayu jaatu nga yandon koo bëgg mu bëgg laay matu jëkkër matu far matu jëkkër matu far koo na nangu koo jël mu sey jëlal yóbbu li nga yore yaa ko moomee sa dangañ dangañ boo fekkee dafay gën a neex dana neex sa dangañ dangañ boo tàccoo dafay gën a neex sa dangañ daa looy ree bu ma wonee dagg ma dagg ma yal na ma yàlla baal ay man bu ma dee yal naa dem àjjana lii est-ce xam ngeen lu neexee nii mi ngi soog am Sénégal. waaw chaque samedi del ñëw. boo amul programme waaw baax na mais xam nga man. mbaa Amina yëng na tey damaa dagg programme bu riis may laal yokku fii ngay jaar am programme bu dàq boobu. waaw waaw barke Serigne Touba. yow tamit loo ma wax ma gëm ko. bu ma paree léegi dinaa la may million. ah waa Sénégal dégg ngeen ko. man du ma waxantu. Amina du waxantu nee na bu paree dina may million. bu ma paree. waaw xam nga programme million amul. xanaa nga jëlee fa lépp million. mais kaay ñu waxaale nga tëggal ma million amul. déedéet amul de. <laughs> bala ngaa bougé dinaa la may million te du ma la bindal chèque. ah du ma la orange moo mukk dama lay jox liquide. allahu akbar waa seen amina. topp ma ci sama oto buñ paree léegi waaye xare ma wax la émission bu neexee nii musul am jël leen numéro xale bi. ndeysaan kii dafa mais gis nga baara yàlla nga gudd fan. amiin. ngi toog di ma seetaan. baara mii laa bëgg. baara 6000 nga may caat mbaa doo ko jël. 15000 laa ko jox. la ma. du ko du ma ko laal. sama géer ñi ñu ngi may seetaan. la ma baara may ku ci mel Amina kii kii xam nga lu mu la may. ah 5000 la ma jox ne ma jox ko mu wecc ma 3000 ma bay. déedéet du ma laal weccat bi ma Amina. ku ci mel ni madame Bey yaay Fallilu ak maam Diar. ayca boo amee téléphone jox ma ci 88 676. ñu demaat woy waa Facebook live mais kaa max la musuma xam ne. Ah. xale yi nii lañ nobee seen jëkkër ci Facebook live Vieux Diouf amoo koy wëylu euh, Facebook live euh, ñu demaat ci xale yi wëylu seeni jëkkër kii nee na ma naa euh, kontaan naa ku ne ngoyaan neexul daa dëkkul Saalum ñuy nuyu waa Saalum yëpp ñu nuyu maam Ami Ndiaye ñu ngi koy nuyu ci Facebook live bi nuyu ñoom aliment Diouf ak waa Lion de Poté Saalum Saalum yooyu nga xam ni nee naa la euh, euh, nekk artiste di tiitaroo sa dëkk yombul ci artiste yi waaye man suñ borom dafa maa may ma siiw ba pare sama waa dëkk gën maa bëgg waa Dakar barki Serigne Touba Dado Dado dafa ma dafa lañ jooy tey ci vocal bi nee na ma waxal ma lii Amina Poté te yóbbante àq la nee na da laa bëgg bëgg bëgg ba bi mu doon wax ci vocal bi da doon jooy. barki Serigne Saliou maa ko raw Dado lay dégg waaw Dado Dado maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Mbour gëm a dëkk Coose ah, di nuyu waa Kaolack képp koo xamante ne sama mbokk nga ak sama xarit rek maa ngi leen di nuyu ndax bëgg dafa metti rawatina nga yaroo ndoog nit wala nga yar nit wala nga jur nit ba pare fier ci moom dafa dafa man da ngeen ma sas ba tax na Alima Diouf ak waa Lion de Poté Saalum Saalum yëpp maa ngi leen di nuyu kenn du laal boo waxee ñu ne Dakar bu bëggul na ñibbisi Mbuur mbaa Kaolack bu dakaar bëggul rek na ñibbisi moo tax waa Kaolack yëpp maa ngi leen di euh, jaajëfal bëri na ay artistes yoo xam ne boo demee fa ñu dëkk <laughs> kenn nawu leen waaye man maa ngi mbay def leen micro di fa jaare di nuyu waa Nganda xale bu baax baa ngi waa Nganda woy xaaral ma ñëw waaw waaw la baara bëgg naa baara nan nga def ba bàyyi ngoyaan ma lu luwee la journée téeméeri junni mën naa mën naa nekk <laughs> Fan ma Ndiaye laa bëgg la ma jëlal sonn ci man waaw ci ay loxo ngeen nekk rek da ngeen nekk ciy loxo ma ñëw ayca ñu demaat Facebook live euh, ngoyaan dafa neex kii nee na ñu woyal ko jëkkëram uy ma tëyal tur yi dama koy fàtte tëyal tur yi tëyal tur yi waa tëyal bu baax tur yi ndax day naaw affaire yi bu ngeen demee Facebook live xam ne day naaw damaa bëgg mu woyal ma sama doom euh, bébé Mouhamed Faye moom mi ngi tudd Ndey Aana nee na nga wëyal ko doomam bébé Mouhamed Faye Ndeye Anna depuis Facebook live ñu ngi lay nuyu bu baax di waaj a wëy bébé Mouhamed Faye doomu ndey aana ñu ñëwaat ci keneen léegi ay ca demal ci moom su ngeen amee téléphone rek jox ma demal ci bébé Mouhamed Faye naaru Ndeye Anna noonu la ay ca demal Facebook live la ba tey caat dafa xew de kii bu bëggee ñu invité waat ko guddi mooy waaw waaw ay ca demal léegi lay doon ni bala boondu kumaan ni bala boondu kumaanooy loobe yaa moom du kumaan ndeysaan Muhammad Faye sangangaay Muhammad Faye sangangaay yaa dukumaan may biram penda dukumaan seetaan loo liir leen yéen ñiy seetaan dimbale leen ma ngeen liir Facebook live li ñuy bind dimbale ma mosal ma ci lii bala moo jeex neex na <laughs> danga bari doole dama bëgg euh, yaayu Amina bu IPM yaayam nu mu tudd Adja caw Thiaw Facebook live bi tey ñëpp la nuy woy seen yaay ak seen jëkkër yi xale yee nobaate man de damaa teel a ñamal sama jëkkër balaa balaa muy xat yow loo bëgg a wax ñëwal ñu waxtaan Amina mhm. boo amee téléphone rek jox ma ma mayewaat léegi benn 100000 waaw Amina euh, maa ngi nuyu sama est-ce guddi bëgg nga ma invité waat la waaw bu la neexee bu la neexee ñëpp bu fekkee ne dafa dafa dama koo dagg léegi. waaw euh, heure bi des na tuuti nag waaye bu fekkee ne olof danaan lu neex du doy dañu koy dog ba beneen yoon. waaw da ngeen may xaar 23h incha allah maak moom ba fajar. waaw 23h mu continuer ñi bëgg woylu seen jëkkër ci Facebook. waaw ñi nga xam ne dañuy def euh, live bu continuer xamante ne ñoo ne ci Facebook live bi di bëgg a woylu seen jëkkër ak seen yaay demal. Amina damay nuyu euh, sama. yaay cim daf ko silence sama sama yaay. Mhm. Euh, Penda Mbaw Mbaw di nuyu sama yaay Assu Assu mm-hmm. Ndiaye commissaire mm-hmm. nga xam ne daf ma jël ak daf ma yaaye mm-hmm. mu nekk koo xamante ni ku baax a baax a baax a baax Assu Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaare di nuyu waa APEX Omar Omar APEX Omar feem lu ma bëgg suba ba ngoon jot moo nga ca di nuyu El Hadj Ndiaye suñu doomu ndey suñu xarit Imam Assane Cissé Ndiaye taximaan maa ngi koy nuyu bu baax nga xamante ni taximaan bu seer boo xamante ni VIP la. Mhm. lépp lu caat les étoiles du Saloum di taxaw ñu mu ngi ca mosta daw ginnaaw. Mhm. maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm imam Assane Cissé Nganda. macha allah si sama xarit Cissé Malick Fanta Ndiaye. waaw Cissé Malick Ndiaye. yaaje nga leen gënee. ndeysaan. barke ala yaay. doom bu niroo yaay ja waaci Omar Kata Cissé mooy sa baay yaa soxna ndaw yaay waaye Cissé ngaari dañ ñëwoon mel ni yow kooku sama xarit la mhm. mooy imam Assane Cissé bi nuyu waa diaspora mhm. sama xarit mhm. su ma limee rek damay jum képp koo xamante ni yaa ngi jëspal ñoom yaa mu Touré ñu ngi ba Angleterre États-Unis uh-huh. di nuyu almaami uh-huh. mu ngi New York sin yi nga xamante ni dépp biñ jàppee ba tey bàyyuñ leen ñu ngi leen ñu gërëm waa Gambie aw ma seen fay Awa Ndiaye Gambia ayca ñu ñëw ñu ngi koy nuyu bu baax ñu jox ma ñu demaat Facebook live jëkkër yi ak borom euh, ñi nga xam ne seen yaay lañu bëgg ay ca kii nee na Amina na ma wéyal ay waay day naaw nag du ci man de affaire bi dafa gaaw kii nee na xadi euh, ñaan la la fi du commissaire xadi ñaan ah wéyal doomu commissaire bi ndax ñun li ñuy def erreur dafa bari xadi ñaan doomu commissaire bi di la maye foofu nag commissaire yi mhm. samay xarit leen waa wéy leen euh, Pape Samb mhm. bureau bureau passe avant maa ngi koy nuyu bu baax borom borom duwaañ bureau passe avant maa ngi koy nuyu bu baax nga xam ne duwaañ bu baax la Makili di nuyu général Bey man police yi ak gendarme yi ak douane yi ñoom samay xarit lañ. d'accord ayca ñu dem ñu dem ci euh, commissaire yi nga woyaale ci tur boobu ma la wax comme Facebook live laa ko jëlee euh, fàtte naa ko de naka laa wax sànq. doomu commissaire doomu bi nekk Facebook live ndax tur yi xam nga du ko jàpp xaw leen kii mi ngi tudd euh, lii neex na lool Amina woy leen ci sama jëkkër euh, Abdou Tall chéri Abdou Tall woy ko yaay booy jëli leen ko Fatou Manka la ilaha lay lay la la faatu xale laay yaay booy jëli leen ko faatu mankaay ana aji ndooye doomi ngër ngaay amiin lay waayu amina tey ma jey lay chéri inconnu woo lay amina jogal yëngu tey ma jey lay chéri inconnu tey ma jey lay ana amina tey ma jey lay borom saalum a ngi tey sëriñ saali woo bara jogal yëngu ma ci laay ani mar Jóob tey ma ci laay saalum saalum yee tey ma ci laay yoo taat leer ooy ki ma bëgg nga bàkkal ma ko nag dama la ciy tekkil sama lam bi un million te dama ciy tekki léegi lam ndax ndax yow ñaata at nga commencé ñëw ci man dëgg la xamee nga ma waxantu. déedéet wala may diggee ci télé te du ma ko def. déedéet lu ma sa wax def naa ko loolu mosuma nga. doomu gàdde nga doomu buur nga. ni ma raaree. ni ma ni sama sant bi raaree noonu la samay jëf raaree. wallaay dëgg la li may def néew na ku koy def. ndeysaan ma liir bii lettre yeeg si fu ma jaar pos bala maa liir lettre bi nag ku ma ñor ku foor ci man laa bëgg bu yeboo nga xalaat woy bi ñuy woyal buur. bu yeboo nga science li ñuy bàkk gor ñi bu yeboo nga science li ñuy bàkk kilifa yi ndax ki nga may woyal kenn la ci man à part mu kooku keneen ñoruma muy soxna Bali. soxna Bali Mountakha. nee naa ko sa digganteeg sa maam. waaw waaw sa bi rek fa dox. yow lu baax lu ñuy def ci réew mi rek. soxna Bali war nañ ko cee boole ndax ku ko gën ci àddina suñ borom bind ko te dootu ko bind soxna Bali Mountakha. demal soxna Bali Mountakha. borom paasu màggali. ndeysaan woy bii ñu koy woyal. woyu buur la dama bëgg yokkal ma xalam bi mu baax ndax bu ñu woyal da koo jar muy soxna baali buntaxaa demal ñu koy nuyu bu baax sama yaay di soxna baali bàjjenu sëñ Sadikh Mbàkke deewooy ziare euh, suñu sang yëpp euh, ñoom ñëpp euh, di sàkku ñaan ci ñoom amuñ lu dul rek ku ci nekk ca la nga am teral ci sa waay ñun ci li ñu am rek lañ mën a teral suñuy waay rawatina ñi nga xam ne ñun ñoo leen bëgg yaakaar leen di nuyu nag waa kër sëñ waa kër sëñ Mbàkke Soxna Lo yëpp ñu ngi leen di ziar Moustapha ñi ngi lay ziar waa daaru yi ñi ngi leen di ziar ñoom itamit bu baax a baax a baax sëñ Moustapha ñi ngi lay nuyu di la ziar ah moom nee na le 18 incha allah mooy màggalu daaru Khodos euh, euh, ñi ngi lay ziar bu baax di ziar waa Touba bàyyiwuñu kenn ayca ñu bàyyi caat nag moom itamit mu siif li mu bëgg a wax lépp euh, bala maa tàggatoo parce que émission bi neexoon na sama xol sedd kon it moom dama koy jox li nga xam ne moo des ci temps bi mu nuyu gërëm ay mbokkam ak i xaritam di gërëm rek ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci tele yi ak ci réseau yu ci mel ni Facebook TikTok YouTube Instagram lépp lu ñu fi def nag bu ngeen ko bëggee seetaanaat te doyalu leen rawatina ñiñ seen i jëkkër YouTube ngeen tapé SSP ñaari es la ak benn P bu ngeen fa demee abone lépp lu ma def ci télé bi da ngeen koy am incha allahu rabbi euh, euh, di gërëm nag ki nga xamante ne mooy sama waa ji rek euh, magu Bayou Birane Ndour rakku Boubacar nduur njaga sama waa ji Bayou Abis Garden ayca ñu bàyyi la caat yow tamit bala ñoo tàggatoo nga gërëm sëy nit remercier leen ayca. waaw maa ngi gërëm d'abord fi ma jógee muy ngànda waa Saloum yëpp. waa jox nuyu di nuyu defal ma lépp Serigne Ahmadou Cissé euh, borom Cissé Zaman maa ngi lay nuyu di nuyu sama xarit euh, Cheikh El Hadj Mbaye Nganda di nuyu mboolem ki nga xamante ni yaa ngi jàpp si liggéey bi maa ngi lay nuyu di la gërëm. di nuyu ah. Baye borom jasineer yi Baye Zal maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaare di kontaan si yow gis nañ si tabaski bi 10 mètres jasineer la ma jox. maa ngi gërëm tamit euh, Thierno Samb bureau passe avant maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Makili sama xarit sama doomu ndey Modou Diop di nuyu Nene. Nene Ngom dama fàtte dédicace bi <coughs> daf ñoo ñor euh, di ko nuyu bu baax maam Cheikh euh, maam Cheikh Fall borom këru soxna Mounas Fall baayu Njaga Fall ah kon maam Cheikh Fall ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar sëñ bi euh, borom këru soxna Munaas Fall euh, bàyyu Njaga Fall euh, di ci nuyu Tike Ndiaye moom lañu dékk suñu sang ba Serigne Abdou Sakkour Fall depuis France ay ca caag yeggalil gaaw. waa di nuy samay sama yaay mama Assou Ndiaye nga xam ne commissaire bu ñaawul bi ci ci dëkk bi nga xamante ni daf ma jël rek daf ma doom. doom bi nga xamante ni moo ko sukk jur maa ngi koy nuyu bu baax a baax waa group bi yëpp ñu ngi koy nuyu di nuyu euh, Ami Collé borom Arabie Saoudite di nuyu yaa Ana Cissé di dem sama fans club Thiat bu Gambie bi di leen nuyu bu baax a baax di nuyu Jànke borom Gambie di nuyu Awa Ndiaye borom Gambie di nuyu Assu Assu Ndong di sama jigéen di sama xarit yaayu Sagar yaayu Mohamed yaayu Khadija maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Tata Adja Cissé borom aselem nga xam ne dafa yor leket kale baas bu mag le vin bi bii di ñëw daf koy organiser foofu sa HLM incha allah di dinañ fa fekk di nuyu Ndey Saw nday Saw maa ngi lay buy di nuyu sama jarbaa di ñoom Khady Diop di nuyu ñu ma àndal nii maa ngi nuyu waa États-Unis waa Angleterre waa France waa Italie ñëpp maa ngi lay ñuy nuyu képp koo xamante nii ñu ngi bëggee les étoiles di Saloum ñu ngi lay nuyu di lay wax ne képp koo xamante ni yaa ngi ñu bëgg jàppale si programme yeeg lépp instant yi ñu ngi si kawam ñu ngi si kawam parce que am nañ si loxo yu wóor yoo xamante ni ñu ngi si nekk ñu ngi répétition yi ñu ngi waajal single yeeg album yeeg yëpp macha allah ànd seeg Boubacar ànd seeg les étoiles du Saloum yëpp ànd seeg staff bi yëpp waaw. di leen wax ne képp ko xamante ni bëgg na mariage. Mhm. wala mu bëgg réception. ba ci ba ci Amina. ba ci kii nu mu tuddati ba ci anniversaire yi ñu ngi koy toj. man sax da nga may tëggal ni benn anniversaire gannaaw suba surprise la nag. waaw ko wax sama benn xarit. waaw. dafa war a def su ma waxee jour anniversaire bi da kay xam. waaw mais li ngay tëggee anniversaire mbaa seeru. non yow du yow yow. <laughs> la laaj dara. ñi ma war a invité ci anniversaire bi préparé leen ñoom bisu Silla waaw waaw Sala Saw chéri Iliman Lam sama jéeg bu baax bi kenn du yow waa déggal borom tissu yu cher yi ci ñun Sala Saw yaa baax yaa jàppale sa jëkkër yaa ko jigadiwul ni Marème Faye Sall mel ci Macky Sall bark li ma naan Macky Sall na ko réew mi xool nii ndax yàllaa ko fal bu ko fi bëggee jëlee rek dana yomb ndeysaan ndax ku baax nday jël liggéey may leen seen bopp jàmm ngeen noppaliku bu waree dem day yomb lool waaye sala saw noonu nga mel ci Iliman Lam barki Serigne Touba Mbacke Serigne Iliman Lam a noonu xoolal ma ne baax ma ne anniversaire bi waaw. dinaa la jox léegi million. waaw ndax ki may defal surprise damay bañ a tudd turam. woo naa ci ñoom Munaas Bijou Silla. waaw. Euh, mami kenn. waaw. Euh, Munaas Seck sama sama sama sama ŋaaño bi. sama mag ju baax jooju borom Amerika. léegi xam nga kan nga may euh, bàkkal. kan laa lay bàkkal. sama goro inconnu rek jox ma sa dédicace bi yow. ana mu xaaral ma liir ko. xaar nga ko liir ma jox waale numéro bi. waaw demal. ajaaloo loo siré ma ca ndaam euh, njàmbur njàmbur bi liiroon naa ko di 77 la 987 waaw xaaral xaaral anamu fan whatsapp 34 77 mooy numéro bi joxe sa numéro xale yeeg may bëgg a lekk naan ma ñamal ma ci bala moo jeex nan laa leen di ñamal yéen 34 soirée privée ñu koy def fan la fan la laal xolo <laughs> bu neexee nga ñëw sa kër sa salle organiser eh, laal xalam fattal ma foofu ma liir lii fattal ñi foofu fattal ma foofu Adja euh, Adja gàkku euh, yaayu euh, princesse Diop ak euh, Mame Sey depuis HLM 4 ñoom tamit nee nañ dañoo bëgg a ñam bala moo jeex ak Mbore Seck centre d'état civil bu principal ah centre d'état civil bu bu ak Mame Anta ak Khady ak les braves femmes de la HLM. Euh, de la mairie euh, des Aslem euh, jigéen ju mën góor mooy Ndeye ant Bass ak Khady Dioum les braves daam de la mairie des Aslem jigéen ju mën góor bu ngeen defee ndànk rek ma liir lépp mais bu ngeen ma sorxo sorxoo damay tiit te jànguma du ma xamati damay datom léegi sama goro inconnu wuy ma li ngay wax na ko xam ndax million laa lay jox du lii du caaxaan. million moom du caaxaan. million du foo te sama goro bii nga xam nii sa yaay daa génn àddina kan yow kan moo la wax yow laa nopp ba nga naan ma sama yaay sa goro te daa dee man sama goro baa ngi di dund di ma seetaan sama goro inconnu waaw loolu dafa leer koddu rek du ma wax sant bi koddu yi bari na mais bu ma waxee sant bi danay xam fa ma jëm kii laa nopp doomam mu yéene ma ko nee naa ko bu ma xamoon ni sama njëkkër sama jëkkër nga boot ma dagg mbootu li demal ci sama billaay ayo yaay yow de yaayu inconnu téléphone boroom cuub bi ñëpp a ngi ma koy laaj. tarkal la yéen ñi bëgg ay motif yu cuub motif yu amul fenn ci Adja cuub rek ngeen ko mën a amee. Adja cuub nag dañu lay gërëm ndax contrat bi saa yu jeexee nga renouveler ko yow mi yaay jàmbaar kenn du jàmbaar numéro am nag yéen ñi bëgg cuub day jaay day maye day leble. te maître ya day doy. nee naa la palman da laa def ci suuf tojalee ko palman xonk dafa ànd waaye tey dama def palman suppu kanja jaune xanaa dal yee jaune de tant que yee noonu chéri inconnu numéro Adja Thioub 77 euh, la <laughs> xale bi nee na ay ku dugg ci poté dafa mitti ay ca numéro Adja Thioub 77 537 68 mën ngaa liir feuille boobu moom la ñuy tëjee di ndax borom a ngi lay seetaan maire la 77 537 68 07 ku ci bëgg cuub yu rafet da ngay dem nga seeti Adja Thioub ak kan. merci beaucoup Adja Thioub kontaan nañ ci cuub yu rafet yi nga ñuy jox yéen ñi am xew yéen ñi war a yet bi yéen ñi dee leen teral seen goro yi dee leen teral seen njëkk yi ci kaw nag ngeen mën ko bañ koo lepp ah kon dem leen seeti Adja Thioub numéro téléphone am 77 la 537 68 euh, 07 merci beaucoup encore Adja merci Vieux Diouf mi ma àndaloon Eva bu SBA ak Kumba ak euh, Nabou Aïs ci kanam. tuuti maa ngi ñëwaat ci télé bi maay def Dakar na door pas incha allah temps yi Aba dafa jàpp ah Aba séeri Mami Thiam moom laay tëjee nii ah sama jëkkër jooju nga xam ne moom ma bëgg a def deuxième femme dama koy wàcce rek moom ngeen pare ci Aba merci beaucoup Ibou Diouf sénégalais yi ñu doon seet tan amuñ seen fay euh, groupe euh, les étoiles la àndaloon Thiat Ngoyane 5 étoiles du Saloum beaucoup euh, xale yi yàlla millions yi bëri na léegi léegi lay doon léegi tëjeel demal ci kooku te nga tëjee Aba no stress Aba no stress chéri mami Thiam xam nga Aba borom waaye man heureusement damaa bëgg jëkkër ju am karaw bëgguma ko amul karaw ay ca kon lii lañuy ñuy tàggatoog yéen ngeen déglu li muy woyal Abbas Séri Mami Thiam euh, borom RFM ak ñoom Mouhamadou Ndiaye ñëpp nga liir loolu ay centenaire borom daal yi. ak mbuubu demal. Amina boo bëggatee daal demal foofu ñu jox la daal boo bëgg. ak ca dawal gaaw bari ñu koo dagg. Aliou borom ñi ngeen ndongo. Vieux Diouf mën nga koo daggaale ci kanam tuuti may leen ñu démarrer rek après nga soog ko dagg demal. Aïcha Diouf commandant ka yeetal ñëw di Sénégal dëkku gay ne njaay mooy sunu gaal te jujul ñe ma bësin